bokki tay ñu waxtane ki nga xamanteni bamu ne may khadim ba kenn ak man cheikh ahmadou bamba tur yi ma lay wax turu dom turu dekk turu téere turu bopam moko indalé turu dom le ci cheikh mamadou kabir ba ci cheikh mamadou murtada tur yépp bo ci xor rek xam ni bàllay sa aw turum du tur yo xamanteni dañ koy jéggani wala déet bi muy laata dem géej la ñu bàyyeeg juróomi Mouhamed Mouhamadul Kabir Mouhamadul Jëddaali Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Fadilu Mouhamadul Lamine Mouhamadul bashir ni sama ginnaaw ku dikk rek ñu ko tudde Basiru muy Cheikh Mouhamadul bashir kon yaakaar naa ni kooku day su ne lislaam ñor na ma nit ñi war nañ koo gëm ki jël xalimaam ni mudd hayaati bil furuudi wa sunan fi jannati nayimin wa fi daari minan xanaa kon yéen déggu leen arab mudd hayaati apa naa sama dund bil furudi wa sunan ci farata ak sunna fi da fi jannati nahimin ba kero may adem jannatu nahim ba fi daaru minan ak sama kër gi ci daru minan kër yeb rafet lol daru salam daru khudus te kat balaa tudde yalla aw tur da ab dekk ab tur tudde dekk ba daru salam mu tudde ko sun borom tudde ko dom abdou salam do a wax yalla ya salam non la def daru khudus daaru xuddoos mu tudde ko dëkk bi tudde doom ji abdul xuddoos walbati ko dal nag ni yàlla yaa xuddoos kon jëmm jooju di Serigne Touba yaakaar naa ni bu dee farataak sunna da ciy man waaye ku ko ci man amul taxawaay boobu nag mu taxaw dëkk mbee di Touba waaye xoolal dëkk boo xamante ni turi dëkkam yëpp boo ubbee alxuraan fekk ko ci turim yëpp mbaa turi yàlla yi waaw dëkk boo xamante ni da nga ko tudde Touba alxuraan wax ni الذين امنوا وعملوا الصالحات توبى لهم واسن المهب دك بانغوك واو دار السلام دار موتي دار عليم الخبير دار خدوس دار منن ينتر مودق يوي تورو دك غول متيكو نك سي نبوت لا تابلي سي محمد الكبير محمد الجدالي محمد المصطفى محمد الفاضل محمد اللمين محمد البشير ديم سي عبد الرحمن عبد الله عبد الاحد Abdul Khoudous Abdou Salaam nii rek lay def de ba ci kan ba ci Mouhamadou Mourtada ab sëriñ ab Souhaybou sëriñ Salihu ñoom ñëpp ab Serigne Abdoul Khadir may laaj na kon yéen lan ngeen di tudde farata ak sunna waaw bu fekkee ni bu dee julli juróom da ko jullee ci géej gi tey nag julli géej gi nañ sóoraale ni amoon fa nekkoon na kafaro bato bii daam nga xam ni 30 tonnes dana ko mat. ab yéefar teg ko ci géej gii suuxul jaamu bi yàlla bu tudd abdullahi wa xaadimu rasul fab deram bi sànni ci géej gi ngir yàlla rek kon bu 30 tonnes mënta suux derub 10 kilos war na mën a bañ a suux te der bi matul 10 kilos foofu nag la nekkaloon boromam di wax ni billahi lazi la ilaha illa huwa man Serigne Touba ana lazi lastu amilu abada ila siwaaka hauna suma xada mosuma jeng jëm ci lenn lu dul yàlla tey ak ëllëg waaw kooku su demee ànd ki noonam bàyyi fii noon ginnaawam ànd ki noon jëm ci noon jekku ay noonam jéggal leen kan moom ma sa jekku say noon jéggal leen xanaa sallallahu alayhi wa sallam moom rek nag mu nurul ak bi ci loolu jekku ay noonam jéggal leen turan salimtu min al ahdaai turan waaye afawtu anil ahdaai turan ku jekku say noon jéggal leen bokk te jekku say noon jekkali leen kon bu dee ku bëgg jàmm dangay mel ni cheikhul bu dee ku bëgg lislaam da ngay mel ni moom dëkkam bee nag man bii la arab amul benn dëkk ñaare bu ma demul waaye dëkk bu téeméeri juma ak ñeent fukki juma daje wax dëgg yàlla ku ko gis dama woo ni ma dëkk sàngam am na fa cent quarante juma te bokkut ak juma ju mag ji ajjuma ju ne ñu taxaw euh, euh, euh, ajjuma ju ne ñu taxaw imam bi xutba ñu julli kon la mu nu waxoon yàlla maa ngi lay ñaan te booba ci mbaarum ngeer la ne ci xasida matlabul ni wa tusbitan jamaatan tuqiim salawatul xams dahban yaa akim yàlla maa ngi ñaan nga demal sama sama dëkk bii ñu taxawal fii salawaatul xams julli juróom wax may laaj nag jukki ba dëkk bu am cent quarante juma te bokkut ak juma ju mag ji borom dëkk boobu loo ko war a adressé lu dul Abdullahi ak Xaadimu Rasul mu liggéey ci Sénégal ñëpp tëj seen bët Sénégal tubaab bi ku fi nekk rek. ngay boroomu cër rek tubaab bi jëlee la fi mu ànd ak tubaab bi ja ja jóge Mbàkke Baar yi ñëw jeewal dem Ndar dem Ndakaaru dem Konakiri dem Rambasam dem Looj dem Mokkel dem Bataako Abarisit Banana Liatta Boma Libreville Mayomba Hildéburg Luanda Cameroun Kabend Cap Lopez Biribiri Dahomey Mauritanie moom kot moom rek moom dong bàyyi fi ñëpp jëmm jaa ngi nii xaadimal nii borom liggéey bu tedd baa ngi nii borom jumaa ju mag jaa ngi nii ci dëkk bu mag bi ci màggal gu mag gi màggal gi nag xam naa mënoo koo traité lenn kaay leen sant le ma yàlla yaakaar naa ni loo jàng jàng jàng jàng sant yàlla nag ci la te Sëñ Tuubaa kat bu ma sa wooteel yàlla bis boo xamante ni cinq millions de pèlerins daan fa daje ñoom ñëpp ñu àndandoo di sant suñu borom yaakaar naa ni kon journée de grâce wa fàttaliku suñu borom moo tax mu woote ko kon sëñ bu mag baa ngi noonu jóge fi nag. le 5 septembre 1895 tubaab yi gërbal ko mu romb jeewal ayaasa minillahu inda jeewali iblisa isnadaytoo biyaawali jeewal métti lool moom rek moom kot mu bàyyi ñëpp dikk ndar dafa li xayrillahu xabla fi ndari daa li badrin la soodaka dari man damaa defee ni xanaa arab yi bon day ñaari arab keroog bu dugg ndar mu tax gis nga ko tey mi ngi nii euh, damaa defee ni ñaari rakkaam yii 18 safar gi war na koo jox jumaa ju mag ji war na koo joxit jumaa ju toll ni Masaalikul Jinaan jumaa joo xamante ni ñaari ñaari ñaari un mètre carré ci Kang Diel Diop yàllaa ma dimbali man ñu wax ak yéen maa yeesal barab ba ci Kang Diel Diop de Masaalikul Jinaan sunu borom dimbali ma juf ju rëy ñu ànd koog jëwriñ Mbàkke fay ba jumaa ji taxaw mel nii yakaar naa ni un mètre carré yooyee jumaa ji fay na ko nafaali xayrillahu fi ndakaaru ku laazan li jërëhul makaaru ana kat la ñuy tëj cib tàngooru néeg ba yaramu doomu aadama attanu ko xetu néeg ba bakkanu doomu adama attanu ko nga ne bismillah rab gi njëkk tam dugg ci say tàng tam noonu yàlla ko def nga muñ rek xam ne inna laa ma sabirin ay wàjji la gars yi nanu bàyyi xel nag sëñ Tuubaa nag te jox ko nag cërëm bii te bàyyi ko xel jumaa ju mag jaa ngi di di jumaay Masaalikul Jinaan un ca jël jom jumaa ji dama ne la ñetti jumaa laa xool ci Dakar bii Blanchot la tubaab yee ko fi def bii di grande moske kan moo ko fi def marocain yi ñoo ko fi def te nag kaay keroog bi bi bi Mohamed V jógee Rabat di dem Madagascar la jaar Dakar wa ajjuma jot mu dem jumaay Blanchot julli fa daal wax nag ni président Senghor war na maa may lislaam bi fii juma fii ci jumaa yi masari jumaa ji di juma yi grande mosquée ay armeel la woon waa dama bëgg mu leer waxu nga ay xuraafaat ay armeel la woon ñu jël jumaa yi euh, grande mosquée def fa mu dem Madagascar dellu rabaa daal di nelaw waaye nag jumaa jooju nag Senghor daa woon kilifa diine yépp bu fi nekkoon rek xam nga sa bopp ca jamonoy Senghor sëñ Fallou daan joxe un million par at ba jumaa ji àgg bi ci des nag murit yee ko bi def benn organisme benn euh, chef d'état wala gouvernement bu yëkkati xaalisam dugal fii ci Masaalikul Jinaan ah man yëguma ko te bañ tegee xeer weeg léegi nag wax dëgg yàlla jóguma fa kon nag tey gàcce ngalaama cheikhul xadim xaadimal Moustapha jëm kooku tey bu dee ku yóbbante ci lislaam nooy def lu jokko ko ànd ak noon yi xareeg ñoom ba bi jeex tag mu door a delsi nag Dakar le 11 novembre ne ijër rujuhi ilaa xawmi sahadatana wa takfina yawma jamu xalqu nira soo gisee tukki bi metti nga xamante ni waxuma ndar ñaar rakka yi ñaari saar yi gën a gudd ci alxuraan dafa tari sourate Baqara 285 aya Ali Imran 200 aaya muy 485 aaya mu jàng ko nu mu ko neexee jàkkaarloog tubaab bi tubaab bi ni ko lu tax nga tudd sëriñ bu mag bi te magoo ci sëriñ si mu ne ko lu tax nga tudd gouverneur général te magoo ci gouverneur yi tubaab bi ni ko dama am chance moo tax may gouverneur général xaadimal Moustapha di ko dama am xaas moo tax may sëriñ bu mag bi tubaab bi ni ko soo ma xamoon mooy ma mun ko yow boo demee ba xam ma mooy ma tubaab bi ni ko ku am baat maa la jëre ci réew mi sëriñ bi ni ko boo liggéey ko am baat maa la ko jox ci réew mi yaakaar naa ni kon baat boobu bu ko joxee Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha ñoo daraay bi andi Touba fab sëriñ Touba andi Touba tàmbali jumaay Touba maa ngi leen di laaj xanaa yéen jàngu ban sénégalais ban africain ban tubaab moo ma sa jëleb raay gaslu ko ànd ak taalibe yóbbu ko Mbàkke Bawol kan moo ko ma sa def tàmbalee ci monsieur Balabé ba ci ki mujj yilif euh, euh, du chemin de fer maa ngi laaj Dakar Niger maa ngi laaj it nag France gouvernement moo daan defarum raay Cheikh Moustapha Al Karim mi nga xamante ni nag tey bu ko sëñ Tuubaa tegoon ci làmbi lislaam xanaa kon daañu gëm farata ak sunna noo tudd Muhammadu Mustafa ka ca màkk tudd Muhammadu Mustafa ka ca màkk Aminatu jur ko kii ci màkk Aminatu jur ko ka ca màkk ah, Abdoulaye di baayam kii ci màkk Abdoulaye di baayam ka ca màkk sañ Taïf kii ci màkk sañ Taïf mu liggéey lislaam liggéey mu mel nii gaañi waxi leen neneen Sëriñ tubaa amul morom liggéey baa ngoog mu dem moom Sëriñ Muhammadu Mustafa ku ma sa jëlub raay foo koy jëlee da koy jële poor yóbbu ci usine nga jële raay jël jubbu ko ci néegu bi yàlla kenn mus ko def ku dul doomi sëñ Tuubaa benn ngoog ñu ne fu ngeen di dem Cheikh Mamadou Fadal ñëw kaarum ndaam iliman ci makka tafsir ci gédé ji tuubaa kuy sa baay Bamba kuy sa maam Rasulullahi fooy tukki makka fooy ñibbi Touba ko moom Touba nga ni man boo ko dee na tudd mu ni laaj ko alxuraan maa ngi nuyu sëñ Abo Barka xalifaam yal na yàlla yàggal ko fi te yokk leeri Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Serigne Moustapha Mbacke Fallilu bàyyi fi njabootu sëñ Fallu tey nuyu bu baax Serigne Cheikh Awa Balla mi nga xamante ni keroog moo fexe woon sëñ Abo ñëw fi waaye nag gis nga raay baa ngi nii fii tey jii ban dëkk nga gis ñu ni nag diggante bi sëñ Touba di wax jumaa Touba tam te def jumaa Njaareem te boobu nit ñi amuñu néegu ñax bu baax waxuma laa nag di am baraak mu defar jumaa ju toll nii ci Njaareem bàyyi fi ñu naalal ko jumaa ju toll ne ca Touba mu liggéey jumaa ju mel noonu yaakaar naa ni kooku l'islam da ko war a féliciter waaye ay tierce personne yu tegul fenn bëgg na daal di ni sëñ Touba man nag li ma jaaxal mooy xanaa xamoo ni jumaay Medina moo fekki bàmmeelu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumaay Touba mo fek ci bammelu Cheikh Khadim jëluñu sëñ Touba suul ci jumaa ji day deb Touba ga ne demal dajo de jumaa ye fek serigne bi tay nak merito nako nak ta ku nek nak sebe keroog bi sëñ euh, Mbay Sarr rahmatullah alayhi dawee wër sëñ Touba tak ay cuur ngabuk segor di ciur dik sëñ Touba du aloo ci jublu mu ne ko dangaa dangaa daan ñëpp mbàkke te bàkkuwuloo ma bëgg laa bàkkul mu ko sa danaa ma sa bàkku bis bu sama sooroor yi taxawee sooroor yi taxaw na demal daaru muxti bu dee ci gàmmu suñ tubaa li mu wax ci gàmmu daa doy waaye li mu jëf ci gàmmu gën ci koo garaaw xoolal ma tey ci ni salaatu bi ma sita taat yi batta matt shaay yow miy jàng nag tey jàng araab xanaa da ngaa xoolul xasida ak mooy bu naafi bismillahi ba ci sali wa salim suñ tubaa tudd ci turu yonente bi lakka saaka anta rek ngir wekk sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon kooku tey yaakaar naa ni l'islam bépp war a taxaw jóg njukkal ko moo tax nee na ngërëm yi laa dajale ak ngërëm yëpp dajale naa ko ñu ne ko nu mu demee mu ni radiyaani sibtahoo jëylaani Cheikh Abdou Khadir Jilaani gërëm na ma radiyaani sibtahu Tijaani Cheikh Ahmada Tijaan Chérif gërëm na ma rabbi radiyaani sibtahu Abul Asan Abul Asan Salis Ziya gërëm na ma rabbi radiyaani xulafaawul arba Ababacar Omar Ousmane Aliyin gërëm na ma radiyaani radiyaani Allahu wa bi rasuli wa bi ali badrin wa ataani rasuli yàlla ak rasulullah ak ali badrin gërëm nañ ma kon ñu amul njëriñ buñ ko gërëmul lan la koy wàññi mu daal di wax nag nii kon sëñ bu mag baa ngoog borom dëkk bu mag baa ngoog borom tukki bu mag baa ngoog borom juróomi ati maa yomba tegul cin teguluñ ko cin ci bul tëddul juróomi ati maa yomba nga bàyyi sa njaboot bàyyi lépp loo am tubaab yi am ak yow fu ñu dugal la fa dañoo dikk Gabon yeew ko ci montagne seet fetal ko mu naan wahab li wahab fi sulaasa maa ju asharata wa salaasa treize officiers tiré d'élite ku ne ku ne ni un deux ba bal yëpp wëlbatiku mu jàkkaarloog yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye Mbàkke yaa di si gor liggéey boobu nga liggéey nag liggéeyal ko lislaam yàlla ko nit ñi xam mu tax nag tey ji tey ana maa yomba ana barab boobu nga xamante ni waxtu yi ma lay wax pour nga dem maa yomba beneen affaire la waxuma laa nag téeméeri at ñaar fukk ci ginnaaw maa yomba nekk àll bu metti maayoom yomba nekk àll boo xamante ni xataay ba ak lëndbaay ñu jël sëriñ Touba mayom ma maa yomb mu nan nafaali xayri fi ma yomb ma sa wa ahlu ba ma maa tegul ci tegaluñ ko ci tibul, teddul fu ko tisbar fek fa la ko takku sandi fek fu ko timis fek fa la ko gee fek dam indil ma yomba ma bégale ko taalibe yi Touba yi wala ni len non suñu xol sedd na suñu xel dal sëñ Touba bindul luñ nan waro na ci doli nangam àllu maa yombaa ngi ni fan la ne ci Afrique centrale sori lol, metti lool tàng lool bari ndox lool bari yoo lool fii la sëriñ bi am juróomi at tegul ci teguluñ ko ci tibul tëddul mu nekk foofu rek mu metti lool mu tax gis nga boo gi déggee mu naan eh, tabaraka rabbun li xadalaada waxdahu faqiran xariban inda galwa wa baafali waaw kon bu sëñ Modou Moussa defee loolu sëriñ falilu Mbacke def loolu andil ko jumaa ji agalil ko jumaa ji andil ko màggal gi Touba bindal ko ñeen fukki kaamil ak ben tok fek seigne touba ñeen fukki at ak ben ginnaaw seigne touba mu tok fi ñeen fukki at ak ben dem nak bàyyi nok ki mi ngi ni bàyyi sëñ soxna may galas sama sëriñ ngi ni ki mo taxaw ba 1945 rew mi metti booba ana seen mam 1945 ciowli bari seigne fallu ni cour ba nak ram rang rafle rakal mot fek fallo nga fi du ngeen dégg musiba waxuma la diko ko teg mu liggey liggey bu rëy mom Cheikh Amadou Fadal ma ngi ñaanal sey Abou Baraka ak mbooleem talibé yalla defal leen tawfiq di siaré bu baax té félicité ki nga xamanteni moy sëriñ eh, di di katusan sëriñ fallu Mbacké muy sëriñ Cheikh Awa Balla day nak ñu aksi jambar ñëw nak ku dox ma dox ku doxul ma dox ba lepp dox daré kamil Cheikh abdullah mag Cheikh abdullah bi Cheikh Abdullah. liñ naan nag euh, liñ naan euh, yéene néeg la boroom ba cay fanaan Cheikh Abdoulaat kon fanaan na ak alxuraan may laaj gaa yi bon daara ju toll na la ci Touba ñu ne ku ko moom ñu ne alxuraan al kon kii tey jii defe naa ni tey moo tudd Abdoulaye Ahad liggéey liggéey bu rëy yaakaar naa ni ba mu nee ñun amuñu ku nu yaakaar ku dul sëñ Touba maag taalibe yëpp sunu kàddoo ngoog lépp. جوخ نانكو توبا ناخ توبا مو جوخ ليبام يونتي بي بالله الذي لا اله الا هو اياتي ومماتي واركاتي وسكناتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دم ياغ مونيكو لو دهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكل بلا شكر توسل بو مل نونو كين مسكو جولي تي يونتي بي توبا مل نونو ليغي ليغي بو ريني با تاي جي تاي mu bàyyi nag ki nga xamante ni mooy iliman iliman dal na serigne abdul khadir ma nga nuyu serigne euh, euh, serigne cheikh abdul khadir ak njabotam gep jini ban la ak jub jubo jubale jellele jegele jang lol jangale julli julle ak joxe wa lu ngeen beugati xana bon farata ak sunna dam ñaar ki moy cheikh abdul khadir ilimani ilimani ni dox tuti andina ki nga xamanteni nak tay mo jaxal adina borom jurul borom njàppandal borom ndoka borom lagat kii tey ji mooy Serigne Saliou mbakke yal na yàlla taasu ci barkeem ñaata daara ñaata maa la waxal fii ni man Modou Mbaye Samb ñaari junni yi xale bind nañu kaamil teg ca loxoom mu door génn àddina yor dongo yi benn daara dootul yelwaan waaye yéen mun leen dem ci daara yi yelwaan mun leen dem ci ñi nga xamante ni dañuy takk seen i tànk dugg ci jumaa wala jàkka toj bomb ñëpp faatu wax leen ñooñu waaye koo xamante ni yow da ñaan sa borom ni ko rabbul wara borom bi ni ko waaw mu ni ko sayduna muhammad mooy xayrul wara mu ni ko waaw mu ni ko man mii maay xaadimu xayrul wara man la ñu jox si maamul wara léegi da irham jami al la mara marabout de la paix moo tax tubaab bi ni ko il devait se révéler comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre 7, le plus grand facteur de l'expansion économique, le plus soutien de l'ordre public, le plus zélé apôtre de la fraternité, non seulement entre adeptes du même culte, mais entre croyants de confessions différentes. Bam, merci. Seigne Touba ma franc 1914 franc bi nous francs français. fàttalikul ne gouverneur général cinquante mille la joxe woon sëñ Touba joxe cinq cent mille francs français kon yaakaar naa ne kooku kay boo dee bëgg nga sama réew ñu ne déet mais Cheikh Sidi Mokhtar mbënn am na fi coow li ni bari mu yëkkati un milliard ñu nañ ko dimbali ko waaye bërki dem rek xoolal kii nga xamante ni mooy Serigne mun di ku ñu di ku ñu segg ki ku ñu filtré ki ki bëgg jàmm bëggal ko mu soo gis Serigne Mountakha ci beneen tomb bu dul soo ko gisee rek ma ngay muuñ soo gisee rek ma ngay ree bi rek ana lu mu def barki dem rek ci pandémie bi ana lu mu deful waaye demal ne la le onze la woote ñaan gi le quatorze muy taw ba heure bi kon balay sa yàlla nga gudd fan te foo gestu gis nga tabaxal université 37 milliards bari sax ñu ngi koy waaju ubbi te taxawoon ndar di fa làkki arab pour ñu gëm la taxawoon ndakaaru di fa làkki arab pour ñu gëm la demoo ci réewi arab yi majjaale ak a taxawaalu fu ne nga di fa dugg fa nga ne yaag fa ne yaag murid yi ñoo tabax université Cheikh Ahmadou Bamba waaye la sama am waxoon rek bil Moustapha lii bana xudusul madrasatan bi ayazalul aza wal jahla wal kabadu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fa yàgg lool te mu ànd ak wér jàmbaar jaa ngi nii le beau jàmbaar jaa ngi nii la joie kii tey jii tey moo taalal l'islam bépp loxo waaw radiyallahu anhu na Tiwaawoon sonn lool ci diine ji sonn lool ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Baye Niass waaye xanaa xamoon Sidi Barham bala ngaa xam ni yàlla mën a maye nga dem Nigéria demal Kano demal Ibadan demal Lagos ci nga xam ni yàlla may na ko waaye xoolal maam Amari Ndak Seck mi nga xamante ni xeej lay xeexe diine ba jot ci li nga xamante ni mooy l'islam taxawal ko ci réew mi ñëpp ba fii may wax yow ku jàdd yoon cene ba yar baa nga kon yéen ñooñu nag ne amna am na seen l'islam lu ngeen defagul l'islam ana kan ala lay ñes ana kan mam limaamu ñi ñep nek fi te diini tax université Cheikh Ahmadou Bamba gi ni université bi nga xamanteni ay ku ko yoroon ci rew mi dem nga arabi Saoudi fo da nga dugg fa mbaa nga dem Maroc majali fo nga taxaw fa li jitt lu so yoon nekkul waye mom bu ne bismillah rek ñun murid yi ñoko jox suñu yef waaye ñun bayi len ki len yakar tay ki len yakar monsieur Ahmadou Bamba xaadimu rasul kon nag maa ngi ubbi ligne bi di wax nag saa mbokki taalibe yi na ñëpp bëgg 33 825 09 60 ligne baa ngoog kon nag ma bëggu nag laa birante ak ak soññante ñu taxaw nag bu baax ci diine ji taxaw bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni tey yàlla jox na ko cheikhul xadim kon bisimilah 33 825 09 60 ligne baa ngoog waaye di wax nag ni tey liggéey boobu nga xamante ni Serigne Touba liggéey lu na ko ñëpp teg seen bët mu ta mu tàllal loxo ñëpp la Cheikh Sadou Habi waxoon rek te Serigne Touba ni ko eh, eh, yow diine sa waay daa tukki de waaye bu dikkee rek nga nopp bisimilah 33 825 09 60 waaw kooku doon na dugg dem waaye Cheikh Cheikh na Cheikh Sadou Habi mu ni woon Serigne Touba. wal badrun munirun xaaba fi suma la sëriñ baa ngi nii jeewale gi première rencontre tubaab bi indi quatre-vingt euh, tubaab indi cent cinquante espace ku nekk yor cent cent cartouche xaadimal ni man de wettalikoo naa yàlla ayaasa minnillahu inda jeewali lii sa is naa day too bi yaawali ba yàgg mu ni billahi faaraxtu nasaara jeewali tàggali ko baa nag nasaraan bi keroog jeewal jàmbaar jaa ngi nii buñ né 1 2 3 rek gis benen armée nan 1 2 3 wa jaangi mu joge fi nak ñew luga ñew nak ndar fekk fa juroom ñet fukki serigne ak ñent 84 tuba bi ni len wedd len yalla serigne bi ni shaytu anna allah rabbul khalq wa anna ahmada rasulul haq qul wallahu ahad Allah samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad julli ñaar rakka ci ndar biro baagi ni Birobagini, le 5 septembre 1895 qui va l'ol ni Bamba prédicateur de guerre sainte trouble l'ordre public porte atteinte à l'économie du pays excite la haine entre les et doit être déporté en Afrique centrale avec une pension de 50 francs par mois procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 signé le 5 septembre 1895 jaar Dakarou kula xasan lii jëlewul makaaru ay waay mitti boobu ci ndakaaru mu indi jumaa ju mag ji léegi nag ma nga jëm ma nga jëm Conakry dafa li xayri laaw fi Conakry min kulli jaalibi ilal manakiri asaba ani laaw fi Grand Bassam xoolal Grand Bassam nga xamante ni ma nga fa egsi le 3 octobre am fa 20 jours muy le 23 octobre soo gisee ñu naan keroog la Bamba fanaan bi sër wëli bu lëndëm wuute naag baafali loolu sëñ Moussa wax Becherweli mooy Bingerville boo demee Abidjan boo demee Grand Bassam am na benn quartier bu camp militaire bu ñu tuddee Bingerville loolu yaakaar naa ni ko dem Abidjan di ko teg bët mu dem ci réew yu métti yooyu jaar ci coono yu métti yooyu maa ngi nuyu bu baax Serigne Mourtala mu Cheikh Abdoulaye nga xamante ni tey màggalu Grand Bassam ñëpp ñu koy fàttaliku. wajaare nag ñëw daaw me liggéey ba métti lool mu naan daxaa niir rahimu inda daaw me mu jaare fa wuti Lagos. yeeg ca nag jaar Cameroun wàcc nag Libreville kon kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba ma ni gaañi l'islam kay daa war a ñaanal te félicité tey sant sëñ Touba waaye faratay sunna yii li mu ci def la kenn deful kon yàlla na ko yàlla fayal gaañi moon liggéey baa ngoog li ci des nag ma bëgg waxtaan ak yéen ci Masaalikul Jinaan ndax ku nekk xam na ni jumaa ji àgg na waaye nag dafa am entretien général bu ñu def nga xamante ni waxtu ne ñu ngi ci entretien bi bañ ko ubbeeg léegi diwriñ nekk ci rek di ndox di wax di jëf facture bu ñëw mu fay ndox mi noonu ma bëgg nag ñu ñëpp ñu gungee ko ci moo tax nu wut nag ay ticket yoo xamante ni lii dañ ko def muy téeméer nga barkeel lii di 1000 francs nga ñëw barkeel lii di 2000 dañoo lu ñu man cee lijjanti courant beeg ndox mi ndax la alaaj ñu kebe waxoon sëñ Touba Cheikh Abdoulaye ni ko maay fay ndox mi courant bi da ko ni déedéet bàyyi ko rek ñu ànd ko ñun bokk ak bokki murid yëpp waaye bu mbàkk yu fay bëggee jël courant beeg ndox mi nag nan ko nan ko ànd ak yow nag ànd koog yow ci liggéey bi ba nga rëmal sëñ Touba gën a dolli ko ci ñun kon nag Masaalikul Jinaan a ngi noonu jumaa ju mag jaa ngi nii waaw jumaa ju mel nii nan nga ko mën a liggéeyale yàlla ci di capital bu toll ni di Dakar ba noppi nag ñuy wax lenn lu ñuy wax loolu yaakaar naa ku amum xel ba dofuloo waru ko def kon jumaa jaa ngi nii di ñaanal bu baax njabootu ma Massamba Mbacké tey nuyu nag sëriñ Moussa Serigne Mame Mor sëñ Massamba tey ci kaw suuf sëñ Massamba boo gisee njabootam ñu doy waar lool liggéey bu rey boobu tey ci Daaru Karim maa ngi ciy soññu ñëpp waaye di leen wax nag ni ma Massamba keroog bi Serigne Mor Anta Sali wàcce liggéey dañoo jël nag euh, soxna Issa jox ko Serigne Dame Khoudia Diabo mu tawlo ci seigne am sa seigne Abdou Karim tek ci Cheikh ibrahim Lo mi seigne Touba ni won Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko dem na dik na dekk na dekk leen Cheikh ibrahim Lo mom nga xamanteni seigne Massa mbagi ni jël rakam yeb joxe seigne am sa ci liggéeyu ray bi mo ci joxe téeméeri talibi ñu and ak Cheikh mohamedou Moussa Al Karim waye sing seigne Modou Moussa moo ni won le touba bi di won wutal comité ñu am xel am xam-xam dañu ma bëgg nga jël Serigne Bassirou Sarak ci jiital ko jël nak ñu am xam-xam mu boole ci nak Cheikh Ibrahima Lo ñom ñoo doon lijjanti fu kër gu tak tay kër gu diine rek ñu dem fa fay ko waxtaane ko Cheikh Ibrahima Lo moomu nak tay mo jur Serigne Cheikh Lo ngabu ma ngi nuyu bax Serigne Modou Lo di nuyu bu bax Serigne mustapha waye di nuyu nak ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Mbacke Lo di khalifa Cheikh Serigne Cheikh mom Cheikh Ibrahima Lo te di ñaanal fannu gudd ak wër xamni liggey bi ñu non rek ah liggey bi nak ñu ñëpp ñu war a góorgóorlu kon maa ngi tàllal loxo nag suba kuy julli si masalikul jinaan nga indaale addiye sëñ tuba ndax tey bu ñu demee entretien bi li koy defar nun ñoo ko war a defal climatiseur yëpp courant beeg ndox mi nun la war kon maa ngi ciy soññu ñëpp di ñaanal nag yàlla euh, kii di sëriñ Muntaqa ak rakam yi mbokkal sëñ tuba yëpp ñu góorgóorlu te ñu koy déglu nag yoon wi jarul góorgóorlu benn kilifa la am sëriñ Muntaqa porte parole Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir ñun ñëpp nañ def regarder écouter exécuter bu dee ci gàmm la mu ne woon salaatu sitta bi mat i sitta taati baata mat shaay gaa yi tekki nañ baasi de sëñ bi moom ma nga ca rek ba déwénati booba maam Cerno Birahim rakam ni ko tey nooy def ak gàmm guddi altine gune mawlid baa ngay yëngu fële ca ca Daaru Muxti tey jii ku dem Cees tey mooy guddik ab la Yaqin ka daan tàmbalee guddi guddi gàmm ba mu feeñee weer yu feeñee guddi guddi aw nag tey ji gëléem tey ji tey ku dem cees lii ma la wax di teg si bët di nuyu bu baax nag Serigne Saliou ture tey ñaanal yàlla may ko fanu gudd ak wér di jaale alaaji Pape Dioum mi nga xamante ni ñoo moom ñoo bokkoon liggéey bi di félicité bu baax waa jàkkay murid yëpp ndax Serigne Cheikh Touré ànd ak ñoom Serigne Sawalou Gadiaga Serigne Ndiaga Pouy ñoom ñëpp ñu taxaw ci liggéey boobu kon maa ngi leen di ziare bu baax a baax di nuyu bu baax nag euh, sëriñ Saliou Thioune mu sëriñ Cheikh Béthio Thioune di jàmbaar jooju nga xamante ni liggéeyu lislaam bi ñor na ko lool maa ngi koy félicité di nuyu bokki taalibe yëpp leen wax nag ni leen liggéey baa ngi noonu nan góor góorlu ñun daal nan nekk ci lislaam te lislaam ñor nu buñ ci boole dara nan topp sëriñ bi nan góorgóorlu jëfe ndigal moytu tere te déglu ko xeex ak xuloo xëccoo xeebaate xaste jaru ko ñun duñ ko def nan topp ci ginnaaw sëriñ bi rek le marabout de la paix jàmbaar jooju nga xamante ni islam rekk ko ñor kon liggéey baa ngi noonu gaa yi di wax nag ni jigéen ñi aju gàmmu jóg yalla yàlla may ko fannu gu dëgg wér aji faamaloo ñoom ñëpp ñu àndandoo ajaratu aram kebe jàmbaar yooyu nga xamante ni dañoo topp ci ajaratu gàmmu jóg ci liggéey bu rëy bii di liggéeyu Masaalikul Jinaan maa ngi leen di sant leen gërëm bàyyi ma kenn ndax liggéey bi boo gisee ñun ñëpp ñu war a góorgóorlu la sëñ Tuubaa ni woon kenn deful kenn dara kenn defalu kenn dara lu waay def si bopp maa ngi fàttali nag sama mbokk jullit yi noonu lu waay wax di nga ko waxaat gis nga koo xamante ni sa loxob ndeyjoor bii di nga ko laloo dugg ci suuf sii di nga wax lu set kon góor góorlu la ngay waxee lu ñaaw nga waxee ko lu rafet la ngay jëfe lu ñaaw nga jëfe ko lu rafet te ñu moytu po mi te taxaw tem lépp loo xamante ni diine dañu ko teg diine kenn moomu ko yàlla suñu borom moo ko moom teg ko ab jaamam ñu war cee góorgóorlu bu baax roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi mooy sunna nañ ci góor góorgóorlu te taxaw ci tem te àndandoo te bennoo te déggoo l'islam loolu la l'islam di la nga xamante ni moo nekk ci waawoon nañ ñaan yàlla dooleel ko te dimbali ko te yaatal ko kafane ne di jëwriñ ji muy serigne mbay si mansour may ko fan mu gudd mu and ak mom ba limu mu mamam maamam mu def ko la xew ci ba ñu ñaanal cheikhu ci ba momit it moom njabootam gépp ba jam am nek fa nan dem ñaanal cheikh abla alaaji waa kër alaaji ablaay ñes waaye ñaanal nak ki nga xamanteni tay moy njabotu njabootu gambar joju ak wa faydu bi yep ñu ngi leen di sat ma ngi dem yof ñaanal bu baaxa baax eh, ki nga xamanteni moy te ko mu joxe exemple bu baax ci yoon wi sëriñ Cheikh Mbacke Laay doomam Cheikh Tidiane si doomam maam Diarra Bousso doomam nii la meloon ak Cheikh Abdoulahat taxawaay bi rafet lool kon maa ngi sant laayeen yëpp te di leen gërëm noonu laay doxee nag ba Njaasaan di nuyu ñëbatu maam bu yëpp di félicité ñëpp. ci gàmm gi fu ne sonn nañ fa waaye noonu ma leen daan wax rek Alaaji Ndaama Faal mi nga xamante ni waxtu ne wu gàmm ma sa am amul génn kërug diine gu mu wu guddi gàmm gi keroog ca Touba Fall ak léegi maa ngi félicité bu baax sëñ Dan Fall ak rakam den wax nag ni mu ngoog ren nag ñu tudde ko ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha moom Serigne Massamba Mbacké yàlla na yàlla dolli leeram mbokk yi liggéey baa ngoog xamal leen ni nan góorgóorlu ci yàlla xam ni lislaam du ñaari bopp bopp la alxuraan benn kaamil la kaaba gi benn xibla la lan góorgóorlu kii lala doy nag ba nga ne ci na nga ci ne te bàyyi nit ca la ko doy bu ko defee rek jàmm am Touba gee nag kenn moomu ko kudd sëñ Touba kenn kenn moomu ko titre foncier bi Cheikh Ahmadou Bamba ci de ki ko fi toogal mooy Sëriñ Mountakha nañ koy déglu na mu doon dégloo magam ya dégloo ko mbokkam ya ñun tim nañ koy déglu ta xamni nak bokku na ci serigne muntaka alim la serigne muntaka afis la serigne muntaka abid la serigne muntaka amil la non laa kon nak jabatu Cheikhul Khadim ngi noonu kérok bi serigne Njuga job ñewé ci mom mu ne ko noo mu ko juga Xari mu ko Omar afdalu min juga, kon serigne Omar job, ak njabootam gep ma ngi leen di nuyu te di leen ziaré non la serigne Touba bëgg won tur bu baax waye ay ay ma jimbeeg ak yoyep déedéet serigne bi boo indee aw tuur sax da koy rafetal jox ko saaba yi ndax ni ñu meloon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon gaa ji mu ngoog nan góorgóorlu nan muñ tey muñ lente nañ jéggale tey jéggale nañ boole ci jub boole ko jàpp suñu jàmm murit yi di tubaab bi waxoon gouverneur général dafa wax ni tra sëñ tubaab nee na doctrine du mouridisme mooy travailler comme si vous devez vivre éternellement penser à Dieu comme si tu devais mourir demain